ndax dafa leer sëñ dafa bind ne sant na sama dund man sëñ Tuubaa nee moom ak dundam sant na alxuraan waaye nee na alxuraan sant na sama dund man Seexul Xadim maanaam nga xam ne alxuraan moom yëg na dunduk sëñ ci kaw suuf chakara umriyal kitaaba wa sakar kitaaba umri wa baqa iya dakar sëñ Tuubaa bind Seexul Xadim it wax na ni ñi mokkal alxuraan ci man la yàlla di wattoo alxuraan Sëñ Tuubaa ne ci man la yàlla di wattoo alxuraan waaye ci alxuraan it la ma yàllay wattoo te ñi mokkal alxuraan ci man la ñuy doolee ko ci man Sëñ Tuubaa xafisani bi dikrihi wa xafisa bi dikrahu wa bi zaada xufasa nga xam ne ñi mokkal alxuraan loolu mooy li nga doon waxtaane léegi ci sëñ bu mag bi la ñuy doolee ko sëñ bi wax na ni kaamil yu wér yi sax kaamil yu wér yi kaamil bu wér foo ko fekk maa ko moom yàlla ma ko may mallaktanii mu musahaha yaa ma man abdal huda wa sahaha loolu tax sëñ Moussa Kane mbaakool di bind di ko yët gànnaar di bind di ko yët saalum di bind di ko yët muy jënd ay mool di ca ñu ne ko lu tax ku bind yët ko sëñ Moussa Kane maa leen koy leeral ndax moom soo féetewoo di ko bindal rek mu féetewoo di la dundal soo koy bayal di ko bindal nag mu sàkku ñuy bay di la jox dalay defal canuk jigéen labat ko yët ko doo ko miin day gàddu say mbir nga ni tuun baa nga ni gumm dimbi tax soo ko meree du la mere boo ko soree du la sori boo goriwul moom mu gori ki ku bañ di nga torox moo tax kii ku ko gis sax ku la gis ku gis ka gis waaj ko gis su ngeen demee ca boobu mu ràmbu leen kenn du torox moo jaa ku deeti listixaar ci alxuraan di jàngi saar di tudd yee di xaar ba ni la lii la yàlla wax sëñ Tuubaa loo ko mos a laaj alxuraan lay wëlbatiki di def nii def nii ba caag mun la lii la yàlla wax ci alxuraan la koy jëlee ba na sosoog léegi itam kenn lañ mas gis ci lislaam jëpp loolu nag koo jàpp ni waxuma ko defal ma ko tedd liste ci moom laa tàmbulee ba lislaam sosoo ba léegi mennum sëriñ Tuubaa lañ mas a gis ku samp daara 1913 bis bu set ñu jàngal la fa juróomi kaamil ba tay ba fii ñu toog tey di ko wax daari kaamil njaarim sëñ Tuubaa nga ko samp 1913 bi mu koy samp moo rëddal boppam daara ji ne Ibra Fall sengeel ma digg fii digg bii sëñ responsabilité lay jël lambu naan defe naag foog naa déedéet Ibra Fall digg bii mu senge kumóor mu nekk Ibra Fall digg bi moo gën ci àdduna la ko wax ne ko borom dend bi mu yàlla soxla na ab dendam man la rus daal di tànn ñaar nit ak juróom ak moom sëñ Touba. ak Serigne Falilou ak sëñ Modou Moustapha muy ñaar fukk juróom-ñett. mu ne bis bu set na ngeen jàng sama kaamil fii juróomi yoon bu jëlee benn bis suñu borom dana taqale asamaan si ak suuf si bëggoon na koo tukkal mën da rus. ci sëñ Bay Saar yuuxu ne ko doon da nga doon yuuxu da nga doon làqatu waaye feeñ nga. yàllaa nga yàllaa ngi da nga doon làqatu waaye feeñ nga. damaa bëggoon nga boole maag ñii ma yor leen sëñ Touba ne ko Babacar saar ñii jàng sama alxuraan ji du ma leen booleek bindeef yàlla mi bind bindeef yi laa leen di booleel kon sëñ Touba dafa mel ni alxuraanul karim musu cee am sax sago yegg na ci am na ku musa ñëw ne ko mbàkke gone yi ci kër gi de am na ci ñoo xam dañu were di ko lool sëñ bi ne ko ñum doon bi mu limee ba tudd gone gone gu man alxuraan sañ bi dañ ko diw diw diw mu ne ko mbàkke mu ne ko ku man alxuraan xaw ma ci ayib te ku ma ko ci xamati bul ma ko wax ku man alxuraan xaw ma ci ayib te ku ko ci xamati bul ma ko wax lii ñu wax ak mbay yàlla sëñ tubaa neen ku mokkal alxuraan la ko yàllay defal li xaari il quraani xifsul baaqi wa ismatul baaqi ma al itlaaxi loolu tax sëñ Musaa Ka ne jàngkatub xuraan lu jéng-jéng yow mal xiyaam kenn du ko ceeney jéng jàngkatub alxuraan du dem sawara de jàngkatub xuraan lu jéng-jéng yow mal xiyaam kenn du ko ceeney jéng sëñ bu mag bi fii nag lañ xamoon mooy ku fi jaar ci réew mi ñëpp nag laa wax da ngay am sa docteur boo feebaree mu consulter la bindal lay ordinance médicament nga dem jëli ko sëñ tubaa fi sa am alxuraan mu di docteur am maa ko wax jaxaltu ko dëhra xalilan yaa habib yaa man xaniitu bi ka an kulli tabib benn médecin mustatim sëñ tubaa alxuraan ko daan faj nee na ak dundam it alxuraan ko barkeel baaraka lii fi umrillahul karim bi ka wal yi taquudu ajran laa yarim moo tax nee na alxuraan bi gaa yëpp la mbas daw wut si ma man cheikhul xadim farra liyal kitaabu wal islaamu wa ummatul maahi fala ulaamu ñett yooyu gaa yi doon njëkkante moom sëñ tubaa lañ àndal alxuraan islaam ak sunna si yonent xeetu yonent bi sallallahu sëñ bi nee na itam man maa moom alxuraan nu nit di moome dara moomee naa ko alxuraan nu nit di moomee dara looy moom dañ la koy may mbaa ñu sarax la mbaa nga jënd ko sëñ bi nee na yàlla may na ma alxuraan sarax na ma ko jaay na ko ma jënd ko mu mulituhu hadiyatan wa sadaqa wa samanan wali yu di mu nafaxa sëñ tubaa nee na te alxuraan jooju it moo sakku ma moom ko man sëñ tubaa moo sakku ànd ak man raamal kitaabu kawnuhu ma'i bila tafarruqin wa umri qad xabila ku fi ma sa xiif it da ngay lekk de ba suur raxasu lekk fu ngeen jàpp ni waxuma ko ma ca biir sëñ tubaa moo daan lekk alxuraan moom ci lay suur nee na bu ma xiifee rek isa qaraxtu sumunan aw rubaa aw nisfan aw waqtan ruwiitu musbia su ma xiifee bu ma jàngee sumun wala nisif wala roba wala ma jàng sama waxtu rek damay daal di suur këll kon kooku moom mooy borom alquran malakani alquranu rabbul alamin wa qaadahu liyal aminu wal amin malakani alquranu tamlikan yaduum wa maliki jaalani lahu alxadim bokkut ak mallakanil qur'anu tamlikan yadoom bi annani xillun wa hibbun wa qadim bokkut ak mallakanil qur'anu tamlikal jamil wali siwa maxtaaril lastu amil bokkut ak mallakanil qur'ana lil janaati baaxin kafaanil makrabil minaati bokkut ak mallakanil qur'ana wal hadisa man qaadali tawila wa tahdisa lii moom day alaram mu moom ko moo tax nee na ci ñi ci man sëñ Touba ci la sun borom di dollee ñi mokkal alxuraanul karim li ñu wax ci kaamil it sëñ Touba lañ mas a gis ci jamonoom ku mës a jëndandoo juróom-ñetti téeméeri kaamil ci benn bis jënd na ko ci njaareem ma indi ci misaal ci moom gi ko moom ba sañ koo maye ndax fi ne eh, loo moomut it boo ko mayee dañ lay daf nang ko rek di eh, sëñ Tuubaa mi Muudu Faal mi ko moom yooyu jërëtul di négocier ak di ko làq naan damay bañ diw mer nañ nañ wàccub liggéey moom gi ko sëñ Tuubaa moom dañ koy waxtaanee Muudu Faal alxuraan ca gànnaar la fekk sëñ Tuubaa ne ko damaa bokk ci giir goo xam ni ku fa mukkul alxuraan doo fa tekki dara ma bëgg nga sol ma alxuraan sëñ tubaa sol ko alxuraan ci ñetti fan sëriñ Ndiassé Cissé mooy wayjur sëñ Mor Mbay Cissé ku ne ñu bari dégg nañ sëñ Mor moom alxuraan la daan dunde sëñ Ndiassé bu bindee ab kaamil ci la da koy jaay di ci dund su ci dundee ba muy waaj a jeex mu bindaat beneen kaamil bi mu déggee sëñ Tuubaa mu bind ab kaamil ñëw sëñ bi ne ko na nga defa téere bi mu ne ko loolu moom jàpp naan kenn dàquma ko bin sëñ bi ne ko man sax moom laay dunde bindal sëñ Tuubaa ab kaamil sëñ bi ne ko lañ la ci daan jox mu ne ko daan nañ ma jox ñetti dërëmi ngurdu sëñ bi jël aw kayit bind ci ne ko ku la gën a jige ca sama fere ya mu ne ko sëñ Masamba Diop Sam mu bind ci kayit ba yow Masamba Diop Sam teralal ma koo kii bi mu demee sëñ Masamba Diop Sam yóbbaale kaamil bi sëñ bi dañ ko yóbbaaleel kaamil bi jox sëñ Masamba Diop Sam kayit wi sëñ Tuubaa bind mu lekkari xool xam ni mbindum sëñ Tuubaa la mu bind ci ma sàmba Diop Sam teralal ma ko mu jël kayit wi def ci poosam nekku ko ñaata lañ la ci daan jox yow mu ne ko daan na ma jox ñett dërëmi ngurdu mu jox ko juróomi téeméeri dërëmi ngurdu noonu lañ ko waxee daal di koy mayaat kaamil bi mu bindoon ne ko nag baax na waaye mbindum sëñ Tuubaa moom damaa gënal du ñàkk a xam alxuraan de déglu li sëñ Tuubaa jàngale bi mu delsee ne ko waxuma la li ma jox waaye li ma ci yéem mooy sa mbind ma la téye delloo ma kaamil ba mu ne ko salaw du ñàkk xam alxuraan dala doon xamal ni man maay borom alxuraan sëñ Tuubaa nag nim dama bëgg nga xam ne nim moomee alxuraan la moomee yu baax yëpp fi ne yi fi baax yëpp sëñ Tuubaa ko moom sëñ Bay Jaxate daa wax lu leer de waaw sëñ Bay Jaxate lu leer la wax de yow yaa set weles nag musulaa dox sax fu taq lu bon setal ma ngir yàlla man mi taq bay tuubi defoo lu bon musulaa def benn bis lu warul tawaa judul yow def na sëlëf lu muy tuubi kenn mësu la jox yàlla aqam benn bis ndara yaw giñ naa ni giñ naa ni wax ji soxlawul tuubi yaa xëy ni doom ngirum yonen ba tey wéyee wéy ba yegg rek nga del si yóbbu koy tuubi moo tax ku wuuteete ak yow looloy waxtaan wi gis nga problème bi foofu la ne wuuteeg sëñ tubaa léeg-léeg nga dégg ku nekk ci télé bi jàngale nañ tuub nañ fekk daa war a tuub moom ndax daa wuuteeg moo tax ku wuteeti ak yow kooka am tulu yiw mboolem ku jug mooy la tey moo def la jar tuubi boo gisee jàngalekati alxuraan yi sëñ Tuubaa yi foofu laay daaneele eh, bu njëkk eh, sëñ Alaaji li ma xam ngeen ko nag ñun ñëpp ay doomi daara lañ di bu njëkk ab sëñ daara mooy nekk ci koñ bi lu waaye desal yóbbu ca daara ja desi waa koñ bi la sëñ daara yi daan dundee léegi man ci kërug daara laa yewoo bu sëñ daara yi ubbee waa koñ bay ñëw di jël si dépasse ci ñoom ba ci sëñ Tuubaa dugalagul loxoom demee wutoon noonu ab sëñ daar daawul am oto daawul am kër gu baax daawul am soxna dañ ko daa xeeb daawul am passeport diplomatique daawul am compte banque yooyu bi ci sëñ Tuubaa dugalee loxoom la tàmbuli na yooyu dafa mat di waxtaanee koo fi gis nag muy jàngale boo ko seenee yërëm ko mu mel ni élève bu wàcce école war caa dellu ndax ak tumuraanke daa wan sëñ Tuubaa ginnaaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen